Why? nga lañu ci yendu ko ah. kaani day daa nañu kaani kay wax. arrière coordinateur mu ngi ginnaaw. gis nga ginnaaw oto moo tax ñoom Moustapha Gaye ak ñoom Pape Niass ak ba ñoom Serigne Daouda biñ fiy monté stérile ca kër ga discours ba mu fi defoon parce que da ko partagé ci ay personnes mën na cinquante six mille personnes te loolu mooy discours bi ni mu amee importance ak ni mu ñaaxee gone yi kon daal dañu ñaan yàlla rek fii moom xam nañ ne baasu Pastef la marché gaar bi moom xam nañ ne bokk ci baasu Pastef yoon kon daal ñoom Serigne Moustapha ñu ngi leen di félicité ci journée bi ñun même buñ fi ñëwutoon waaye ñëw fi nag saafonte nit ñi xamal leen ne leen ñu ci liggéey bi daa munta ñàkk mais daal ay patriote dëgg-dëgg ñoo fi nekk ñu gëm projet bi ñoo fi nekk ñoo xamante ni xaaruñ ci parti bi dara maanaam xaaruñu leen parti defal mais ñoom lu ñu defar parti bi la ñu xaar kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax damay faral di wax ne Pastef moom ku gëmul réew mënu cee bokk ndax dara lu fi neex amul bu génn sa alal a yaay génn sa alal bu dem ci terrain bi jotee yaay dem sa terrain bu guddi jotee yow yaay fekk sa ñu reer par yaay jël sa bopp reer kon campagne bi daal wane dëgg-dëgg de Ousmane Sonko li mu woo Sénégalais yi fekk si nañ ko ci te marché gaar bi ñi fi ay modèle lañ ci projet Pastef waaw man ma ko ñàkk témoin ndax nëbbu jëf ju baax moom bokk na ci naafiq te xalaatuma ko def kon ñu ngi leen félicité bu baax di leen encouragé di ñaan yàlla it comme ni ma koy ñaane bis bu yàlla sàkk yaakaar ji ngeen am ci président Ousmane Sonko ba ngeen dagg seen liggéey yaakaar jooju yàlla bu mu tas keroog ne ma fii ko fekkoon fii liñ ko yóbbu sama xol dafa seet dëgg-dëgg ndax loolu mooy projet Pastef mooy fi nit ki fu nekk di tuddoo Ousmane Sonko mu nekk modèle ci njub nekk modèle ci jëflante nekk modèle ci mais ne Ousmane Sonko laa àndal gën a dëng garab yo kooku li Ousmane indi xamoo kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax baax a baax di fàttali ñëpp nag ne comme ni ko sëñ Daoud di wax ku bëgg a woote Ousmane Sonko moom bulletin bi ngay woote mooy bulletin wàllu Sénégal bi kon ñoom rafet na sell na la 31 moom damay faral la mais département Mbacké moom bu département yëpp meloon na seen moom ci Sénégal cohabitation dina am assemblée nationale ndax fii mënuñ fee am gën ngaa gàtt APR mënuñ fee am 10 pour cent mënu fee am ci Sénégal ci département Mbacké ndax mënuñoo jógee ci élection nga jël ndaare bi ak nax président Macky Sall kon waa askanu département bi maa ngi dégg ñoom dañu saboté bureau de vote nañ gën teel a wote ji fii mënuñ fee saboté dara luñ fee def ci seen kaw lay këppaat kon maa ngi leen di jaajëfal sëñ Moustapha ak ñoom sëñ Pape Niass ak ñoom sëñ Cheikh Khady Samb mi ak ñu fi nekk ñëpp rek ku lim jum sëñ taxawaay bi rafet na encadrement bi sell na jërëjëf kontaan nañu baax a baax a baax jërëjëf kon ñu ngi noonu jërëjëf coordinateur Pastef ñëwoon na ci gaar bi defoon fi ay visite tey jii mu del si waat fi doon leen seet loolu xam seen pas-pas ak seen yëg-yëg rek a tax yàlla nañ sëñ bi eggaleel barke Cheikhul Khadim jërëjëf maa ngi ñu tuuti. ñu ziar baax. ñu ñaanal bu ñu toll xam naa yéen bari bari. alhamdulilah tubarkalla. tubarkalla incha allah. walaay dèjà dëgg la de. ñu demoon nay de ñu ngi ñaaw dong. incha allah moom daal. amam kay dafa ñëw ànd ci liggéey bi rek noo ko doxalee rek noonu. na sa xel daal Mbacké. waaw waaw xam naa nii moom ay bëtër ay dong la ne waaye nu mu lay ñaanal. kii mooy daal. ca kaw ci moom waaw man nga ne Ousmane bokk na ñu tax jàpp parti bi mais nag dañuy dañoo bokk ak fu ñu féete bokk moom seen jubluwaay ci kër Sëñ Tuubaa ndax ñi waa Daaru Muti rek mosuñoo dem Daaru Muti te fekkuñ leen fi ndax bu passé Pastef gëm poros bi yëpp seen sëriñ dina leen a jël ne leen àndal leen ak président Ousmane Sonko kon ñoom mbir mi dañ ci amaat beneen pas-pas waaw kon bu ñëwee ba ci gaar bi ñuy encadré ñoom suñu Moustapha Gaye bi ak Baye Seex Xadi mënuñoo ñàkk jaar ñoom taxawa ci ndax ñoom it lu ngeen tàggoo comme ni ñu ko wax waaw loo leen defal rek wax la kon nag ñu leen jaajëfal ngeen def ñaata dégg jërëjëf yàgg fi lool te wet yàlla suñu Bàmba may la ndam ak suñu waase Ousmane Sonko ak Abdoulaye Wade ñoo ànd président mbokk bi am fa Abdoulaye Wade ku bëgg a wane Ousmane Sonko boobu day jël ndax ñoom ñaar ñoo ànd Ousmane Sonko ak Abdoulaye Wade ñoom ñaar ñoo ànd dëkkaa bu mbokk bi am photo Abdoulaye Wade ku bëgg a wane Ousmane léegi nii la ñuy def nii la ñuy def waxuma de ah, na wóor na wóor na wóor de sax suba kaleegul benn minute ñoom sëñ bi lañ bëgg a gis suba kaleegul benn minute suba. waa léegi kale boobu kale ko moo ko. déet ana ji léegi rek naanaa yi Ousmane ji jaar fii lu fi ne rek Ousmane ko ma. ku jëlee guddi gàttal dem na ko dem jëli préfecture bu ndaam. sous-préfecture bu daaw fa la KPN nekk ngeen dem jëli ko arrondissement bu Ndam fa la KPN nekk ngeen dem jëli ko Ousmane Sonko ak Abdoulaye Wade ñoo ñoo ànd ku bëgg a wane Ousmane Sonko ak Abdoulaye Wade ñoo ànd Bañ ya bu baax baa ngi nii baax baa ngi xamee leen ko Ousmane Sonko la nii wala nii nii nii la nii hmm. booy ma daje bii bii ci enveloppe bi dégg nga waaw. li sa seet bii la waaw. gars yi nag dañuy wër naan wote leen bulletin Ousmane Sonko bi ngir jéem nax nit ñi. dañ leen di nax rek pièce la waaye mënuñoo nax kenn. xam nañ ma bu baax bi mooy bii Ousmane Sonko nee na Ablaye Wade. Euh, yaay sama magum bi kon jiital naa la département de Mbacké ak kon nag bii bu mboq bi ci la ñuy woteel Sonko woteel ci Ablaye Wade woteel ci Cheikh Thioro Mbacké mii ñu àndal mooy ku baax nag ku bëgg waa marché Gare man dama koo jàppoon waaye dama koo gën a jàpp Tafa keroog bi nga xam ne Ousmane Sonko mi ngi ñëw tuuba ñu dem di ko gana di ko jëli sëñ Cheikh Thioro mi yéeg ci oto bi bi mu ñëwee ba tolloog ñun dafa ne Ousmane Sonko nii ci loxoom na ma Pam Niass ma ko waaw mu ne Ousmane ñi ñooy waaye marché Gare bi kon loolu ak la boo xamante ni man wax na woo naa Tafa wax ko ko kon donc loolu moo lay wan ne yow am na foo ñu teg waaye ñun ñii nga xamante ni tamit ñun ñoo la jiital am na fuñ la teg ñun te barki Serigne Touba nga am ndam waaw incha allahu rabi di nga am ndam. ñun mooy mooy moom moom lañ gëm xam. ndànk rek ndànk rek yow booy ni la gis nii soo màggee sécurité ñun ku tedd ku sell gi ci naan Sonko yóbbaale bisimilah jërëjëf. kii moo gën a wóor moo nekk sama ko mën a yéene. Ablaye Wade waaw waaw moom lañ jiital fii ci département de Mbacké. yàlla de man moom lay woteel xaw ma. xam naa ne moom ngay woteel yow. man kay moom lay woteel xaw ma nag keneen. fekk na ko mu kii. mu ne tasaax dinaa jatu leen fekk na soo ni nii. def nii moom. jatu leen. kumbatal na leen luy tëbiteer. bu ko bu ko bu ko tabee xam la góor ga waxan ak booy bi sama baay xàmmee naa la de mu ne ko bu dee keesa de waxoo dëgg <laughs> moo ma jaaxal kay nee na ko ah bu dee keesa de moom du dëgg <laughs> kees daal la nanguut ko ko fa xam moom eh, dama sek ba mi ngi nii de bulletin baax baa ngi nii ah Ablaye Wade ma jox waaw. waaw Sonko rek fi boobul ci la ñuy xeex dund bu seer bi waaw yaa ma woo kon. waaw ana ko nga ne ko seen aay bi kenn du la jël. waaw waaye wuy ma. nee naa la doon wax sànq dégg nga waaw ok waaw. waaw après dégg nga. waaw ok. waaw lii moom lan lañ ci nar kon. waaw Sonko Sonko ya Sonko jooni daal ñoo ko tegi seen bopp Sonko la jox Ousmane Sonko mu sell mi Ousmane mu sell maa ni ah. mën naa wax. waaw. waaw alhamdulilah baarikàlla naka yi tey baarikàlla santati rek baarikàlla alhamdulilah jërëjëf baax na yàlla yàlla àggale yéen amiin amiin jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf léegi naan fa dem nii buñ paree door buñ paree door dem ci mitin boobu. yaakaaruñ kenn esam tol ni Ousmane Sonko dong lu ñu gëm du leneen nag esam tol ni dañoo sonn dañoo sonn li fi nekk Ousmane moo mën a dindi leneen mënu fi dañ Ousmane Sonko dong moo fi mën a toog dindi li fi nekk kon nag xale yi nañ jóg takku ànd ko mu gagné li fi nekk ñu dem suñu yoon esam tol ni réew mi dafa tardé Sénégal daa tardé Sénégal daa tardé te li ko tardé laa wax fi nekk la naxaate nañu bàyyi naxaate mi dañoo naxa naxa ndax bañ solo ñun xale yi kon nag fi mu toll ñoo mën a fipp nekk la ñu ngi nii fi mu toll nii waaw sonn nañ Ousmane Sonko rek moo fi ne képp koo xam ne yaa ngi ci Abdoulaye Wade daa ngi nii boo ko dugalee dugal nga Sonko salaamaaleykum wa rahmatulah na nga xam ne nag Sonko